pàcc bu mujj ci xibaar yi li ci yeneen kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye leen ci àndal. jërë ngeen jëf Aliou Sall hors la loi la l'observateur moo ko bind bil yéen bi boo demee page trois bu journal bi ma nga fay leeral li tax mu ne rakki njiit réew mi nit la ku tegewul ci yoon ñaari ndombal tànk yi ñu ko takkal ñaari ndombal yu mun munta daje ci benn tànk ndax moom Aliou Sall mooy directeur général caisse dépôt consignation ba noppi wëlbatiku doon président association des maires du Sénégal di AMS te loolee ngan di maami conflit d'intérêt lay jur ndax ma su ta bëgg a ba noppi di sédd dëddu septembre 2017 gi ñu ko tegoon ca boppu caisse dépôt et consignation dane woon dana joxe présidence bu association des maires du Sénégal waaye defu ci dara bi wàllu observateur waxee ak moom li mu leen wax mooy boppu association des maires du Sénégal du ma fa jugee li fekk sama mandat jeexu fa mu tegal leen ci ne ci jamonoy jëf la ñu toll wax jotagul bés bu wax jotee dinaa wax ñu wax ci wax juree ji neexi tubaab Abdoul mbay njiital parti bi di acte wax démb jëmale ko ci Macky Sall ak nguuram la tribune nañu Abdoul Mbaye nee na bala koo jooyee a jàpp ci réew mi ñuy wax waxi Sénégal émergent nan la ñu mën a waxee émergence ci réew moo xam ne askano bu ñu maree du ñu naan bu ñu bëggee sangu du ñu am lu ñu sangoo ndaxum ndox amu fa li amoon bërki démb ca jam ñaajo mu di deer délégation entrepreneuriat rapide Abdoul Mbaye nee na dara taxul Macky Sall indi ko fi lu dul bëgg a tuur lëndam askanu Sénégal ak bëgg wut ay pexe yu ñu mën a jaaree ba pasar pasaree àlalu réew mi fukki milliards ak juróom ci suñuy koppar la ñuy seet nañu ko ngémbalee te xaalis boobee ñuy wax ci deer bi li ko leer ba leer ba mukk boole ceekit ku farul ak nguur gi boo yaakaaree ci xaalisu deer boobee xamal ne jafandu nga ci conc tous doo ko jot moo tax mun a jot na sëkk ci askan wi yëpp jóg indi révolution politique ci réew mi la bi ñu waxam joojee moom Abdoul mbay ma nga ko waxee ci meeting boo xam ne Thierno Bokar Kane borom parti bii di parti pour la rupture et le changement di PRC caabi bi moo ko organisé woon ndax moom ceer Thierno Bokar Kane borom caabi bi dafa jël dogalub dem àndi jeeg Abdoul Mbaye premier ministre ba woon beneen premier ministre bu fi woon ba woon ni xëy na woonaat yéen a kaay yi Souleymane Ndéné Ndiaye daanaka journal yi ñu xëyee tey boo ca dem fekk ko fa bokk na ci xët mu njëkk la quotidien sàngin gi neew di fa leeral grâce présidentielle bi tax Karim Wade génne ci kaso bi ana la demee nee Karim Wade yàgg naa def ay jéego ngir ñu grâce ko man mii di wax ak yéen Karim Wade yónni na ma ci Youssou Ndour yónni na ma ci Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mi ne woon xalifa général des Mourides yónni woon na may ci Macky li ba ñu gracier daa bëgg nga waxal ko président Macky Sall mu may ko grâce ndax yow Macky Sall dana la déglu ba ma fa jugee ca laa dem seeti Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mi newoon ci yooyu la jamono xalifa général des Mourides ba ma waxee ba yeggal ci la ma xamale moom xalifa bi ne musul jóg te di ñaan ngir Karim Wade génn ci ñaaxo ñaaxo yi mu nekkee te ñaan yooyee dama koy wéyal Souleymane Dena Ndiaye ne keroog ba ma Macky Sall di décorer ñaaroon na ak moom ñu petoo yàgg booba la ma ko doon wax mooy mu seet nu mu mayee Karim Wade grâce présidentielle mu génn ci kaso bi ndeene ne fa Macky man mooy danaa ca xalaat Karim Karim Wade sàcc bu mag la Pape Samba Mboup moo ko wax ku weddi xoolal xët mu njëkku réew mi quotidien ña ne woon ak ñu jógee fa taxaw tey jii ne dañuy seet nu ñu falaatee Macky Sall ñoom la journal bi xëyee ñoog seen i kàddu bokk na ci Souleymane Ndéné Ndiaye mi ne moom musuta wor maître Abdoulaye Wade Serigne Mbacké Ndiaye mi ne Macky Sall c'est un frère libéral ak Pape Samba mi ne Karim Wade sàcc bu mag la réew mi quotidien nañu na nag njiitu réew ma woon di Abdoulaye Wade gaayam ya far nañu ko jekkali sëf bu jekkee loxo jug ca ku jéeg politique gi jugoon keroog demoon seeti waa Union européenne doon leen wax li leen miti ci réew meeg li ñu fi bëgg journal Source A nee nañu seen dem nga foofee daanaka yàqi tànk la woon ndax lañu wax tubaab yi union européenne yi ne moom la ñu bëgg ci réew mi mu di comité de suivi loolee am na ci réew mi bu nuppi l'observateur nañu waa parti réew mi seen xel dalul ci ni njiit réew mi bëgg doxalee ci wote njiit réew mi mu di présidentielle 2019 yi nee nañu luusa nga ca Macky Sall ci pexe waajal valider victoire am techniquement ca la nekk ñi dellu ca la ñu nekkoon direct info nee nañu ñooy étudiant réew mi coowal bourse li jolleeti na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru retard gu mag mu am ci payum bourse yi moo waral xeeree yi génnati démb ne ginnaaw ay weer yu ñu toog dara xewul démb étudiants yi delloo nañu buum ca booy booy ba étudiants yu master yi ñooy laaj seen subvention annuelle direct info nañu ay bourse yoo xam ne matul dara te seeni borom du ñu ca jot mukk waxtu waxtu jóg ci xale réew mi jot na ubbi leen Sud Quotidien rapport 2017 bi tukkee ci ministère de la justice wax da ne fii ci réew mi ñeenti junniy xale ak juróom-benn téeméer ak fukk ak benn ñoo ngi ci musiba maanaam dansé ci ñooñee juróom-ñetti téeméer fukk ak juróom-ñaar ya am lante nañ ak wàllu yoon diwaanu kees ndakaaru ak ndar nag fa la raay ba téenee fa la xale yi gën a toroxee kawteef ca kaso bu Cees Les Échos nee nañu ñaari góor la ñu bett ca wanag ya ñuy def yëfi saay-saay waaw turandoo karo bu baax